waaw <laughs> yooyu yooyu yooyu daal yooyu daal a xew loo yoo xew yooyu xew yooyu xew ah ah am na ay kilifa yoo xam ne noonu lañ nekk ci réew mi ci ñoom laa ko gisee ah ah waaw waaw xam naa ci kaw xam ne ah seen ah, moom laa ko gisee dañ koy suturaal de ah ah, ah moom ci ñoom laa ko gisee de léeg-léeg ñu jàpp benn oto bës rek la ñuy di di ko chaque cent personnes fenn ñëpp hmm. di jën jënd bindaalaate ay sec sec yi duñ di dem impayé ah, yow gis nga yooyu waaw xale bu jigéen bu ñu takk fase takk sa morom waaw ah, ñu ngi fii ci dëkk bi ah, di wër ay bëj ak di wër ñu leen xam ak di télé yeeg yooyu waaw ah. Aliou néew nga bëgg na ah da nga dañ koy def di di kii da xam nga bëgg waaw da xam waaw loolu laa bëgg def ñu ñooñu rek dañ ñooñu dañuy sàcc lépp sax papa ah ñooñu da dañuy sàcc ak lépp man nag sàcc moom xam naa ñoom nañuy sàcce man mënuma koo sàcce yow eh, loo bëgg a sàcce mënuma sàcc daal si jigéen ñi la yow jigéen nga sàcc ko jël lam yëpp daw mu dem di la wër nga daw ut keneen loolu baaxul bàyyi loolu loolu loolu moom baax loolu doxul dégg nga yow yaa ciy gaañu rek